salaamaaleykum mbokku internetu Dakar People ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen ne dal leen ak jàmm si seen émission tey nag ñu ñëw fii nii jàmmalaay ñëw seeti ki nga xamante ni si moo di sëriñ Tafsir Omar Ba doon ku yàlla baaxal si wàllum xam-xam di def ay résultats fii si senegal mu wër àdduna wërngal këpp sëriñ Tafsir Omar Ba ñoo ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin ñu leen di delloo nuyoo di nuyoo di leen nuyu yéen waa Dakar People di nuyu askan bi Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi wax ne gëjoon ngeen ñu gis ci internet bi waaye loolu yëpp lan la woon rek te ñu gën a teewaat suñu kurus yi gën a nekkaat suñ bopp te gën a jaamuwaat yàlla loolu rek moo nekkoon gëj a gisee gi ñu leen wax ne bismillah tafaddal jërëjëf sëriñ Tafsir Omar Ba ñoo ngi lay fay bu baax a baax ñu ñëw fii nii pour mën a wéyal suñu waxtaan laaj ak tontu ci ponk yu baree bari sëriñ Tafsir ma lay laaj sa jaar-jaar fan nga jàngee ak fan nga jàngee asraar. waaw alhamdulilah rabbil alamin question boobu moom question bu ma neex la. parce que nit ku nekk war nga mën a xam sa jaar-jaar sa xam sa palmarès. Mhm. sant yàlla di wax ne ñun biñ toolee ci jàng dañ ko dañ ñoo sonal lool ci ñu jàng wala biñ jàngee ba tere alxuraan génn nañ sàkku ji xam-xam ba yàlla defal ñu ci tawféex loolu nag biñ ñëwee yëpp terewut tooguñ benn yoon ñu wane ne ñun ay doomu daara lañ mhm. suñ bàyyi taxawal na ay daara te daara yooyu ñu ci doxol di ko wëyal di ci def lépp luñ mën. di ko sàmm ba nga xam ne yàlla nammu na lim nammu ci daar yooyu noonu te terewut ñu ngi dox di gëstu mbiru lasraar ñuy wax ne loolu dem nañ ci fu ne fu nekk teg nañ fi suñ tànk ci mbiru lasraar moo tax euh, damay wax ne jaamu yàlla bu nekk rek lay sa ittee mm-hmm. bu la taxee jug nga dogg ci am ci yitte am ci yéene rek yàlla dana la ci defal tawféex mhm. te ñun nag amul sikk ne loolu dañ cee dogg woon defoon ci yitte xar ci suñ tànk tubay fu nekk ñu teg fa suñ tànk ngir loolu kon yaakaar naa ne demet suñ duggee ci mbiru ñaan yàlla rek nekkoon ci ay xale mhm. ay kilifa yu mag lañ ci ñu ngi sant yàlla bu baax ci jaaru jaaruj boobu mhm. loolu daal moo nekkoon tontu bi ñu wax ne ndaw lañ ndaw yoo xam ne suñu yitte yëpp mooy jàng ak jàngale liggéey ak jaamu yàlla ak ñaanal jaamu yàlla yi loolu rek moo nekk suñu yitte. macha allah sëriñ Tafsir Omar Ba ñu gis ni tamit yaa ngi jëflanteel ñu bari ñu si gis ay résultats di si gis seen bopp ñu gis ni tamit wàllum ubbeeku ñu bari dañ koy soxla ku bëgg a ñëw jëflanteeg sëriñ Tafsir Omar Ba su ñëwee loo mën si wàllum ubbeeku. waaw alhamdulilah wàllum ubbeeku moom jamono jii ndaw ñi soxla nañ ko lool lool mhm. ndaw ñu ko soxla ba képp koo xam ne yàlla namm na laa dimbale rek dégganteeg man dafa yomb ci yow. Mm-hmm. te amul sikk ne képp koo xam ne yàlla dimbale na la nga déggante ak man ci mbiram ubbeeku rek. Mm-hmm. dana xam lan mooy sa buntu dana xam yow lan moo la war a faj lan moo la war a dimbale ci bu dee ci xaatim laa ko jaar. Mm-hmm. dinaa ko jaar ci xaatim boo xam ne da nga ubbeeku ci kàttanu yàlla te doo ci am benn jafe-jafe bu dee ci yaramu tilim la nag danañ foo xam ne. danañ fóotu yaram bi ba pare doog la bindal ubbeeku. Mhm. waaye amul sikk daal ne ubbeeku moom yaakaar naa ne buñ doon liim ñu ci taxaw ñu ko defal ba yàlla defal leen tawfiix duñ jógee fii. Mhm. loolu daal moo nekk yéene boo xam ne am nañ ko ci ndaw ñi te gis nañ ne nit ñi sonn nañ lool ci jamono bii. Mhm. day gis ndaw loo xam ne dafay tëdd nelaw ba une heure deux heures wala ba trois heures du def. du dara lu mu rek moo nekk ci xel mi. ñu wax ne jamono bii yu bari yu xew xale yi dugg ci rek ñàkk liggéey moo tax ñu dugg ci waaye bu ñu leen dimbalee ñu am liggéey rek yu bari yoo xam ne ñu ngi ciy dugg duñ ci dugg mhm. te dinañ xëy di liggéey wàcc ci jàmm incha allah di wax ne ubbeeku daal mhm. am nañ ci ay bunti bunti bunti yoo xam ne bunt buñ ci jaar rek yàlla danañ ci uysi te incha bunt buñ ci jaar ak nit da nga toog sant yàlla bu baax a baax su xëy yi moo la tawoon da xëy di wàcc ci jàmm mhm. su fekkee liggéey moo la tawoon da nga liggéey di wàcc ci jàmm su fekkee nag ubbeeku ubbeeku bu jub moo tax nga ooñu bismillah soo fekkee ne da nga ubbeeku ci leneen mhm. ñun duñ liggéey ci gàllaaj bi ñuul duñ liggéey ci xërëm duñ liggéey ci dara mhm. suñ lépp ci asraar la lépp alquran la ak sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. di wax ne képp koo xam ne ubbeeku moo la tax a jub doon nga tëdd di nelaw amoo foo xëy wala amoo loo def wala danga dem ba tëju sa bunt yi nga umu boo déggante ñun loolu yëpp danañ ko saafara insha allah rabbi ci kàttanu yàlla sëriñ bi ñu gis ni tamit nit ñu bari dañuy wut wàllum kaaraange maanaam muslaay loolu tamit sëriñ Tafsir lan nga si mën. waaw alhamdulilah kaaraange moom yaakaar naa ne loolu nekk na loo xam ne jamono jii moom ñu bëree bëree bëri dañ ko war a ëccoo parce que nit mu ngi xëy di dox di dem foo xam ne waru faa dem nit wax ci moom dara làmmiñ jàpp ko mu nekk balaa ci moom mu nekk feebar boo xam ne daf koy toog ba mu dugg ci bàmmeel. te loolu ñu bari dañ cee war a bàyyi xel kaaraange moom yaakaar naa ne képp koo xam ne tën la boo dégganteeg man de mbiru kaaraange dootoo ci am jafe-jafe mooy wax ne lii ñu bari dañ ko dañ ko lii moo nekk loo xam ne ci liggéey kaaraange mm-hmm. lii ñu bëri xamuñ ko nag mm-hmm. mooy kees yu ci niw yi mm-hmm. kees boo xam ne liggéey nañ ko ba pare dugal ci niw ci lay liggéey kaaraange lii bu ma ci liggéey kaaraange ba nga takk ko ci sa ndigg wala nga sangoo ko incha allah kaaraange rek nit ku la liggéey dana dee wala képp koo xam ne jug na pour di la jugal di la fexeel dana torox ba nga xam ne torox na wala képp koo xam ne mu ngi lay jugal kër boo xëyee danga xam ne kii cew la ne waaye dafay torox tànge moo koy ñeel dafay xëy di jeex di jeex jeex ba dee moo tax lii dafa nekk loo xam ne nekkul ne nit ku nekk lañ koy liggéeyal ci kaaraange am na ñoo xam ne mhm. dañoo jara liggéeyal kaaraange am na ñoo xam ne jaruñoo liggéeyal kaaraange parce que boo leen liggéeyalee kaaraange sax li leen liggéeyal du nangu waaye nag am na ñoo xam ne ñu jara jàppale leen ci jamono jii moo tax ñu jug fas ki yéene am ñoo xam ne ñi nga xam ne dañ leen di néewal doole ci biir kër yi wala ñi nga xam ne dañ leen di néewal doole ci seen am-am wala seen alal dañuy néewal doole nit ñi mhm. ñoo ñoo tax ñu jug pour jàppale leen mhm. parce que loolu baaxut nit ngay gis nit koo xam ne dafa yàpp alal di néewal doole moromam koo xam ne mm-hmm. amul dara koy néewal doole lu nekk mu koy def te loolu baaxul ci jamono ji rawatina nga wax ne jullit nga jaam ko ci yàlla nga rawatina nga wax ne yow sénégalais nga parce que fii nii képp koo xam ne rek nga fi rek da ngaa war nekk référence war a nekk nit ku baax xam ne da ngay dimbalanteeg nit ñi laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li axi wa maa yuhibbu li nafsi ñun ay jullit lañ dana war a ji dimbalanteeg suñu moroomu jullit ñi moo tax ndaw yu bëree bëree bëri sànku nañ ci ñàkk kaaraange ñi dof nañ ñi dem nañ def loo xam ne sax bëgguñ ci woon dugg dugg nañ ci ba pare rëccu ñeel leen mm-hmm. te loolu yëpp ñu ngi wax ne nekk nañ loo xam ne ñu ngi ciy xar suñu tànk tubay ba képp koo xam ne ñàkk nga kaaraange bés boo déggante ñu dañ la ñàkk incha allah da nga liggéey da am tawféex te dootoo am benn jafe-jafe ci sa àdduna allah rabbi. jërëjëf macha allah Serigne Tafsir ñu gis ni tamit comme ñenn ñi nu ñu mel ne dañuy dawantu si ay kayit di déposé ñenn ñi di wut kayit muy dëgër si ñoom. kon lu ci mel nii si sëriñ si. waaw mbiru mbiru kayit de sëriñ su bari fii dañ leen woo wax leen mbiru kayit waaye dañ may woo téléphone ne ma diw ca nangam ba gën a kayit mhm. nu ñuy def ma woo ko ne ko bindal ko nangam ak nangam wala defal ko nangam ak nangam wala téyal ko doogu nangam ak nangam mhm. incha allah bu paree dana jot ci kayitam mhm. man ka ma wax loolu dafa ma dana ma woo téléphone ne ma kooku jot na ci kayitam yi ñu ci bëree bëri ñoo xam ne dañuy nekk Amérique di oote sëriñ si fii. Mhm. man ñoo ñu oo dañuy yëkkati seen téléphone woo ma téléphone. Mhm. ne ma man kat diw oo na ma këyit la bëgg nangam ak nangam diw oo na ma lii la bëgg nangam ak nangam. te incha allah rabbi képp koo xam ne man woo nga ma ci loolu su ma la joxee résultant wala bu ma la joxee nga defal ko nangam boo ko defee danga ci teg sa bët. Mhm. parce que nekkul loo xam ne bunt bu nekk laa ci jaar nag. bunt bu nekk laa ci mën a jaar. bu ma ñëwee ci buntu xaatim nga wax ne ci laa gën a mënee. bu ma ñëwee ci ren ak sunguf nga wax ne ci laa gën a mënee bu ma ñëwee ci gàllaaj bu ñuul waaye nag gàllaaj bu ñuul moom banaa ko banaa ko sama gannaaw du ma ko ti mukk mm-hmm. du ma ko liggéey la ci kenn mm-hmm. mbiru xaatim mu ci liggéey àdduna ak lu ci biiram bu ma neexoon tey mën naa tukkal àdduna ci mbiru xaatim ci benn xaatim kese kese kese mm-hmm. bu ma ko daggee lépp lu ma ci bëgg a def naa ko ci def benn xaatim kese nit ñu bëri nag dañuy dagg xaatim waaye xaatim ba ñuy dagg day fekk ne xaatim bi dafay damm te xaatim bu damm baaxut ci dara waxumala nag nga dagg xaati mu damm nga jox ko nit mu sangoo ko. Mhm. yaakaar naa ne loolu danga nga koy gën a tëj waaye doo ko gën a ubbi. di wax ne képp koo xam ne loolu am nga ci jafe-jafe. jafe boo ma indil man ci zaahir rek ci baatin. Mhm. dinaa ko faj man jaam bu xeebu bii danaa ko faj te da nga sant yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. te da nga wax ne rëccu naa man lu ma yéexoon a xam mii sëriñ bii sang bi incha allah nekk nañ koo xam ne dañ fay nekkal nit ñi rek dañ fay nekkal jaamu yàlla yi rek. jaamu yàlla rek lañ fi nekkal ci seen itte rek. waxtu bu nekk nag ñu ci suñu kurus gii di jaamu yàlla wér de jàng jàngale liggéey jaamu yàlla rek lañ nekkee ngir lan ngir buñ soxlaa yàlla mën ñoo dimbale ci lañ soxla ngir ci jaamu yàlla yi parce que nit ñi soxla yaakaar la te yaakaaroo yàlla yow dafay métti mm-hmm. fexeel ba bu la nit ñi yaakaaree yow fexeel nga yaakaar yàlla di def ci lu neex yàlla nekk nekk ci ci ci ci ay ay itteem bay ay tereem parce que al a xadd ahadukum Euh, man kaana lillahi kaana laahu lahu da nekkal yàlla ci lii yàlla nekkal la ci lii bu la ndaw ñi yaakaaree nag il faut que nga yow yaakaar yàlla nekkal ko ci lii bu ko defee aajo yu nit mën a indi rek yàlla dina la ci taxaw mu faju incha allah ci kàttanu yàlla. ayca macha allah sëriñ Tafsir Omar Ba ñu gis ni tamit ngay def ay résultats ci Sénégal mu wër àdduna wërngal këpp ba ku jëflante ak yow gis résultat woo sëñ bi ne gis naa résultat ñu gis ni tamit bëggante bi fii bëri na fi lool maanaam boole ay nit. mun naa ne sax non loolu tamit Serigne Tafsir lan nga mën si loolu. waaw boole ay nit de day fekk mu bëgg a nekk diggante jëkkër jabar. Mhm. danaa ca sawar waaye boole ay nit ci caaxaan. Mhm. loolu moom du ma ko defati. def naa ko waaye du ma ko mës a defati. parce que léeg nit ñëw jooytu la ne dama ko bëgg a takk te fekk bëggut koo takk daf koo bëgg a caaxaanee. Mhm. waaye képp koo xam ne bëgg ngaa takk mu leer ma ne bëgg ngaa takk ma déggante ak yow nga wax ma ma gëstu def listixaara xool bu ma xoolee xam ne yow mii doo caaxaankat ba ngaa takk mm-hmm. incha allah ci juru juróom-ñaari fan da takk xale bi mm-hmm. waaye su ma xamee ne caaxaan moo tax a jug nag dama yàq diggante mm-hmm. koo xam ne dangaa dem ñaani jabar famille ñi ngay ñaan jabar ñu bañ santal yàlla boo dégganteeg man demal nga tëdd nelaw soobee yàlla ñoom danañ la woo téléphone ne ñëw may la jabar incha allah ci kàttanu yàlla ci lépp nag ci alxuraan lañ ko teg lépp rek ci alxuraan lañ ko teg ak suñ kurus gii képp koo xam ne loolu tëna la dem nga fu nekk mbokki ndaw si nelaw ñu la may nga dem fu ne ñu bañ déggante ak man nga dem tëdd nelaw incha allah danañ la wax téléphone ne la ñëw ñu may la jabar incha allah. ci kàttanu yàlla ñoo bu baax a baax Serigne Tafsirou Omar Ba di gërëm mbokku internetu Dakar People yi tey lii lañ leen indiloon ñu leen di jox di daje beneen yoon si beneen émission sëriñ bi lan ngay tàggatoo. waaw alhamdulilah beneen yoon di wax ne euh, ñun daal suñ lépp rek mooy bëgg jaamu yàlla yi kontaan bëgg saa su ne bu soxla ñëwee rek ñu xam nañ cay taxawee ñu xam nañ ciy dugalee suñ loxo ba lépp yàlla def ci tawféex nag barki dem am na sama benn xarit moo ne ma sëñ bi fan yëpp dama lay woo nga jafe ma ne ko wallaay mënuma toog teg téléphone rek di wax téléphone nit ñi bu la yaakaaree il faut nga am noo mën a defee wala il faut nga am loo xam ne denc ci rey sa bopp mhm. moo tax boo gisee ñu sonn ci suñ kurus yi nangoo téye suñu kurus yi nangoo toog wér da mhm. loolu rek lañu xalaat mhm. boo gisee duñ tëddee duñ mën a nelaw loolu rek lañu xalaat new na nit ñëw fii ak soxla ba génnaata soxla bi du faju xaraam loolu yàlla nañ ci yàlla yàlla nañ ci yàlla musal nit ku dugg fii ak soxla wala nit ku déggante ak ñun ci soxla inchaa allah rabbi soxla soosu yàlla dana ko faj ci zaahir ak ci baatin inchaa allah ñu ngi gërëm askan bi yëpp di ñaanal Sénégal yàlla wàccee fi jàmm ak salaam di ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi ci prison yi yàlla defal leen tawfiix bañ génnee leen mm-hmm. ñu nekk ci lay hôpital yi ñu ngi leen di yàlla yàlla may leen wér ak wérle di ñaanal yàlla góor ak jigéen mag ak ndaw suñu xalifa yi kilifa diine yëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla may leen wér ak wérle yàlla dëgëral leen ci zaahir ci baatin ñu ngi tukki nekk ca réew ma ñu ngi leen di ñaanal yàlla visa yàlla na leen yomb ñu ngi leen di ñaanal yàlla këyit yàlla na leen yomb ñëw ci jaamu te bépp buñ fi duggee yàlla nañ fi duggee jàmm ak salaam mm-hmm. buñ génnaatee tam yàlla nañ génnaatee ci jàmm ak salaam wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu